nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte saa su rek ni ñu koy defee sur la télévision euh, Kabir TV Kabir TV nag saa su nekk lañ di indi nag matinal bu am solo rawatina nag seen euh, émission bi nga xamante ni saa su nekk ñu leen koy faram fàcce mooy Kabir matinal Kabir euh, su nekk noonu lañ koy defee di nuyu kilifa dinañ kilifa aada yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni waxtu bi ñu ngi ñuy bàyyi xel baax a baax à travers la télévision Kabir TV. mbokk yi gannaaw loolu dañ leen di ziar bu baax a baax gannaaw bu ñu ñaanalee kilifa diine kilifa aada yi waaye tamit sans plus tarder dañuy daal di sóobu nag si langue bi nga xam ne moom moo di la ñu koy daal di door a def nga moom moo di rawatina fële sa Colobane Colobane nag ñu nemee ko fa rek kii di premier ministre Ousmane ko gannaaw bu fa demee rek ngeen nemmee ko xale yi. yuuxu yu ñu ko doon yuuxoo di ko yuuxoo waaye tamit euh, tegal ko sax woy boo xamante nii yaakaar naa ne dootul fay ba abadan ndax nag euh, waa Colobane yëpp dañoo àndandoo xale ya mer ba futtu génn nag teeru ko teeru bu doy waar teeru boo xamante ministre dootu ko daal dootu ko fàtte mukk ndax xale ya dañoo génn ak mbooloo bu takkoo takku di ko yuuxu yuuxu yu métti waaye gis nañ ne ba mbir ma jéggee dayo rek dañu ko mujj nguufaan dugal ko ci otoom ngir mu mën a dem waaye tamit mu nekk loo xamante ni xale ya nekk sa diwaanu euh, Colobane ñoom tamit daal di leen daal euh, naqar bu baax ne li ñuy xeex ki nga xam moo di Ousmane Sonko di premier ministre daf leen a wor dafay naa décevoir ndax li mu waxante woon ak ñoom ñëpp lépp euh, maanaam daal faraax dem maanaam defu si dara ndax nag jël lu dul euh, ñoom ñu jàppale ko ba tey mu jël leen foofu sa kolobaan kantine euh, yaak ñi sa aju yëpp mu daal di koy daaneen ngir nag ñu jóg fa léegi nag loolu la xale yi di ñaawlu xale yi di ko ñaxtu ngir nag kolobaan bu ñu jógee foofu dañuy daal di daw fële sa diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar kii nga xamante ne nii moom moo di rek Massaly moom tamit daal woote woon na li nga xam moo di euh, conférence de presse euh, daal di dajal nag li nga xamante rek euh, rawatina lépp ñëpp ñoo xamante nii ñu ngi aju si maanaam presse bi woo leen ngir def déclaration moom daal daal dinay démissionné si poste bi mu nekkoon muy PCA bi nga xam ne moom la daal di nekkoon daal dina fay démissionné nag li tax mu démissionné fa daal nee na maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk gouvernement bu bees bi ñoom daal dañoo war askan bi dañoo war Sénégal moom nag loolu mënu koo supporter mënu koo muñ moo tax dafay daal di démissionné ànd ak ngoram ndax ngoram mayu ko muy toog euh, si nga xam boobu noonu di fay ko ay millions di tëdd di lekk ko noppi euh, te autant que ñi nga xam moo di jeunesse bi ak euh, suñu yaay yi ñëpp ñu ngi foofu nga xamante ñoom ñëpp am nañ si xam pas de moo tax nag mu ne dafay démissionné poste boobu ànd ak ngoram ànd ay rakam ànd ak ay. marchand ambulant yi yëkkati ànd ak ay yaayam yi ànd ak ñëpp ñi nga xamante nii euh, ñu ngi leen teg euh, maanaam guuta gi maanaam gouvernement bi daal teg leen loo xamante nii ma euh, dafa ne ñoom responsable bi jubali fa nga xam moo di rek l' observateur l' observateur xam ne rek mooy assemblée nationale sur le débat budget d' bi nga xamante nii moom nag daal na si ñëw bu baax a baax li nga xamante ni daal nañ koy attaqué nag euh, contre li nga xam moo di maanaam euh, ki nga xam di premier ministre ak ki nga xam moo rek gouvernement bi ak ay jàmmaloo ngir nag ñu mën a def débat d'orientation débat budget d'orientation aussi lépp loo xam ay décision maanaam ay détective privé yoo xamante ni nekk fii si diwaanu Sénégal ñoom tamit nag euh, rawat na rek daal dina leen di moom ngàññi bu baax a baax atum 2021 ba atum deux mille vingt 2024 bii nii ñu gis nag double seur bi nga xamante ni moom la gouvernement bi euh, di def waaye kii di euh, Ousmane Sonko nee na France xëy moom daal yëgul euh, tinul yëyu si yàbbu si waaye entretien bu ñu def ak ñi nga xam moo di rek Mamadou Diop de Croix moom nag def ak ne moo entretien bu yaatoo yaatu moom nga xamante ni moom nekk si département bu. Euh, fële nga moom nekk nag nga xam ne moom moo di moom Diop Croix nga xam ne kenn dootu ko présenté moom tamit euh, gannaaw waa la ki nga xam ne rek l'observateur bañ defee moom bu yaatu wax na si euh, pàcc bu yaatoo yaatu fële nga xam moo di département bu rawatina rek fële moo di rek mbir ki laan foofu nag moom la mort grise li nga xam moo di rek deux frères mu nekk nag loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu fële nga moo di rek diwaanu fële nga moo di mbir ki laan waaye tamit euh, fi nga moo di rek prison bu Tambacounda li ñu fa nemmee ko rek gis ngeen euh, ka xam moo fa ñàkk bakkanam gannaaw bu ñu defee nag def nañ autopsie ba ngir nag xam lan moo daal di euh, guute loolu Ama Baldé ak ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux ni ki démb la woon waaye gis neen rek verdict ba fa mu daal di mujjee enquête la ñuy daal di ñëw enquête nag ñëw rek si annulation bi nga xam ne moom moo di le débat d'orientation bi nga xamante ni Euh, moom Sonko daal dinay fermer nag ay portam ñi nga xam ne moom ñoom ñoo di euh, député yi moom nag euh, nga xam ne moo di sa assemblée nationale bu ñu fa jógee dañuy dem nag fa nga moo di rek le quotidien le quotidien nag série de déguerpissement bi nga xamante ni mu ngi xew si wàllub diwaanub Dakar ak li ko wër Sonko expose son étal moom la ko daal di kenn le quotidien daal di tuddee waaye nag à Colobane Colobane nag ñoom tamit ak daal di dafay wàcc wax fa nag li nga xamante ni naka lañ war a dimbalee jeunes yi bañ mën a nag euh, jàpp si loo xamante nii ni mën a am ay cantine ngir mën a wel seen i njaay waaye tamit euh, dem na fi nga xamante moom moo di rek euh, rawat na fam daal di demoon daal di fay wax nag ay kàddu yu mucc ayib ngir nañu mën a jàppale li nga xam ne di ndaw yi nekk diwaanu Colobane bu ñu fa jógee dañuy dem si le soleil le soleil nag moom tamit euh, les larmes contre qui moo di rek Sonko euh, moom la daal di député ko nag mise en base sur deux virgule euh, seize hectares yoo xamante ni muy site boo xamante ni daal site privé la ñu jël ko jox ko ñoo xamante nii waruñu leen ko jox wala boog naka sa dund noonu lañ sa daal di def moom nag fu mu toll nii site boobu lañ see taxaw yëkk ne dinañ ko daal di càmbar daal ba mu gëna a saytu ko bu baax a baax. la tribune la tribune nag ñëw si l' assemblée assemblée nationale daal di nay bañal nag ñi nga xam ne moom moo di rek député yi seen euh, maanaam li nga xam ne moo di rek euh, projet bi nga xamante moom mooy euh, projet bi daal di dëgmal ngir nag ñu amal nag lépp loo xamante ni daal di nañ koy defal muy débat budget d' orientation boobu noonu te ki nga xamante moom moo di la premier ministre Ousmane Sonko daal di nañ koy lànkal waaye tamit bu ñu jëmee fa la nga xamante rek lox ki nga xamante rawatina waa. Walf Quotidien Walf Quotidien nag bataille autour de la déclaration de politique général moom la ki nga xamante moom moo di war euh, Walf Quotidien daal di xëyee moom tamit si li nga xamante ne moom moo di rek mu njëkk bi loolu la daal dix euh, dix dix-huit morts après après plusieurs attentats sursis dans le Euh, ville de Guaya Guazaz foofu nag am na li nga xamante moom moo di rek au moins de dix huit dix huit personnes xamante ni ont été euh, tuées et euh, dix huit dix neuf blessés dans plusieurs attentats surtout samedi loolu nag samedi bi nga xamante ni la daal di xewee samedi dans la ville de Gozava dans l'état de li nga xam moo di rek Brno, Brno, dans le nord-est du Nigeria, selon le service de euh, mu nga xam ne mooy service de secours bi nga xamante mooy di nekk ci local bi à Paris moom moo ñu ko daal di xamle la police de euh, la police a de euh, son côté fait état d'un attentat suicide ayant coûtant la vie à au moins six personnes Nigeria bu ñu fa jógee dañuy dal di dem fi nga xam ne rek propose la mise en place d'une force en attaque pour lutte contre le terrorisme moom mi nga xamante ni moom moo di la CEDEAO daal di neen nag jaxee nag li nga xamante propose boo xamante ni ngir nag ñu mën a xeex li nga xam moo di euh, si diwaanub euh, àdduna bi la communique euh, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO remettre sur la table euh, son projet son projet de force en attaque euh, li nga xam ne moom rek pour euh, démontrer euh, ay nit ñoo xamante nii dañuy def ay ñaawteef loolu nag lutte contre terrorisme lañ ko daal di tuddee ku ñu xam ne loolu moom moo di RFI moom moo xam xamle détails yooyu mais daal di nag jëlaat li nga xam ne moo di ab ngir gën a mën a xeex li nga xamante moom moo di rek wàllub terrorisme bi nga xamante ni mu ngi si diwaanu àdduna bi ak li ko wër bu ñu fa jógee nag eh, dañuy daal di ba tey wéyal li nga xam ne moo di rek eh, nga xamante nii ñoom tamit amal neen ay eh, lépp loo xamante ni mooy ñett nit ñoo xamante ni dañ leen daal di rey si dimanche bi wàllub tàggat yaram nga xamante ni nag moom mooy daal di ndar képp suñu xibaar yi moom moo di dëgg dafa si yéenekaay yi fële nga xamante moo di dëgg duno ba léegi dañuy delluwaat ba léegi si jàmbaar bi nga xamante ni en Ligue 2 euh, au moins euh, la saison prochaine euh, ce sera don sans Bruno lañ koy daal di amale mooy technicien boo xamante de cinquante am na cinquante cinq cinquante six ans si ay atam la daal di toll qui a mené l'équipe bi nga xamante mooy l'équipe de Saly en finale de la Coupe du Sénégal en 2021 waaye tamit est à une deuxième place à une deuxième place du championnat euh, de la Ligue 1 euh, la saison dernière n'a pas euh, pu été fi fi nga xamante ne moom moo di rek si wàllub Ligue de bi nga xamante ni daal di neen koy wàcc waaye tamit ñi gis sept existe bi nga xamante ne 2023 ak 2024 bi selon nos informations daal dinay xam ne nag Euh, daal dinay kiiti fi nga xam ne moom moo di le championnat du Sénégal 2013 da ko daal di daal di euh, kiiti waaye ba tey nag ñu gis lutte zos mi par euh, li nga xam ne moom la daal di amal mooy le chef de file de l'écurie Dóor waar Zos n'a pas passé l'ordre face à Louise Ndiago moom nag nga xamante ni loolu nag si dimanche bi la woon Euh, da ko daal di dóor mu euh, kawo mu nekk loo xamante ni moom Zos moom géejee dugg si làmb yi yàgg na waaye ndiki démb rek mu doon jàkkaarloo ki moo xamante rek euh, Luis Ndiago waaye nag ba ñu rek Luis Ndiago da ko Zos daal di këpp ba jëlee sa ab xam loolu nag mu ngi xewoon fa la nga xamante rek démb arène nationale waaye tamit bu ñu fa jógee rek dañuy wéyal aussi li nga xam moo di rek làmb ki nga xam moo di rek Ada ak guy gi à ak guy gi euh, gouverneur de Dakar impose le roi au euh, ba au de Guédiawaye mu nekk loo xamante nii à la face euh, face terminé li nga xam ne moom di rek foofu ak ki nga xam ne di rek guy gi. waaye tamit euh, fi ñu koy jeexalee moom moo di euh, réussite bi nga xamante moom la Ada daal di def retourné marqué li nga xamante ne moom moo di rek guy gi nga xamante ni daal dina koy euh, amal muy nag deuxième saison blanche boo xamante ni le baobab de Guédiawaye daal dina koy nag avait au cœur de réussir son combat bi nga xamante ni daal dina koy de de l'arène mise en l'orbe bi nga xamante ni di na koy amal muy. Euh, dimanche bi nag euh, lañ ko doon amal avec euh, de répercute bi nga xamante ni moom la daal di nekkoon moom guy gi ak ki nga xamante moom moo di médiatique Ada Fass loolu nag ndiki démb la woon selon qui l'ont supprimé gouverneur de Dakar daal di nay nag xam ne ngir nak ñu mën a jël nag ay motukaay yu mot sëkk Euh, si li nga xamante ne moom moo di rek euh, wàllu làmb yeeg la sa aju ngir nag euh, gën a aar li nga xamante moom moo di askan gi ndax nag lépp loo xamante ni bu dee làmb la dañuy gis nag li nga xamante moom moo di rek ay ñaawteef yoo xamante ni bu làmb yi jeexee waaye nag kii di gouverneur bu Ndakaaru jël na si ay matukaay yu mot sëkk mbokk yi li moo nekkoon seen émission Kabir matinal saa su nekk ñu leen koy amal fii seen télévision Kabir TV ànd kook nag toute l' équipe di si nuyu bu baax a baax suñu woo caméraman Ousmane di Ndeye Awa di ko jaajëfal baax a baax ndax fecc liir bu neexee nda yaatee sa loxo mais du nuyu aussi euh, toute l' équipe euh, Kabir matinal wala boog Kabir TV à travers par ma voix merci beaucoup à bientôt si beneen émission Kabir matinal